ni Bienvenue sur di Vision. bokkal plateau bi di nuyu waa TFM yëpp mbokk téléspectateurs yi di tàmbalee nuyoo bi aussi euh, mu doon ab jaal ci ñi nga xamante ni dañu génn àdduna di ñaan suñu borom mu fëgg bopp ñi nga xamante ni dañoo feebar. teg ci it ñi nga xam ne caabi da leen féetee ginnaaw suñu borom dimbali leen génne leen di ñaan jàmm yàgg Sénégal di wax rek ni effectivement présidente racine de l'espoir là donc je vais de de parler au nom de l'association et des jeunes effectivement. maa lay fay di nuyu waa plateau bi yëpp. Euh, di nuyu waa Sénégal ak ñi ñuy seetaan ci guddi ajuma ji euh, di wax ni ni ngeen ko waxee rek di nja jàll Euh, famille yi nga xam ne tey euh, seen i doom yi seen bakkan rot nañ ci événement yi passé mu nekk lu diis lool parce que euh, bu nekkee fukki bakkan ak ñett wàññi nañ ko ci diir bu gàtt gi diis la mm-hmm. te nekkoon na tamit yoon ñu def ko dëy pour bañ ko caaxaane mm-hmm. parce que dafa nekk loo xam ne événement bu douloureux la mm-hmm. cest que ñun tey fii ñu ngi toog di waxtaan mais heure bii ñun ñuy waxtaan ñoom ñu ngi nax ci seen i biir naxar il ñu defal leen ànd leen Euh, jàppale leen psychologiquement parce que du lu yomb ku nekk gis nañu événement yi passé c'est vrai tamit ñu ngi bokk ci plateforme de la société civile jàmmi réew mi mm-hmm. boo xam ne teel naa jox euh, ci def ay jéego mm-hmm. ci situation yu mel nii pour jàmm ñëw mm-hmm. euh, bokk tamit ci cadre unitaire islamique nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Amin moo ko jiite. ñoom docteur docteur Cheikh Gueye ak kuréelu diine yi nga xam ne ñu ngi bokk këru diine yi bokk ñoom itamit ñu am jéego yu am solo mm-hmm. yoo xam ne dox nañu ko mm-hmm. Sénégal nag nii la day am fu ñu ñii di féetewoo fii di xeex ñii di féetewoo fii di atte ñii di féetewoo fii di xàmb mm-hmm. day am ñoo xam ne tamit dañuy taxaw nekk ay sentinelle ne leen ah lu mu bon bon dëkk bi moom il faut mu fu ñu ko téye fu ñu dalal nit ñi loolu daal comme jàmm xaw na dal fu mu ne nii ñaan yàlla mu yàgg ñu mën a jublu nag ci régler suñuy problème Euh, waaw donc ñu ngi nuyu mbokku téléspectateurs yëpp di effectivement jaale ñi nga xamante ne jot nañ fi jóge parce que dañu jóge jamono yi ci ay événements yu xaw a compliqué waaw di wax ni amoon nañu intention manifeste suba pour effectivement euh, taxaw ci la libération de ce que nous appelons les otages politiques ñoom Guy Marius Sagna ak ñeneen ak ñeneen pour effectivement laaj aussi ñu yoonal par rapport ak ñi nga xamante ne ñoo fi jóge ci bi ñu commencé nekk ci loolu di ko waajal effectivement kilifa diine yi yónnee ñu ndaw euh, ci baatu euh, sëriñ euh, ci baatu Basiru sëñ Basiru Poroxaan ñu ñaan ñu effectivement plus aussi yeneen i médiateurs yi nga xamante ne ñu ngi dans l'ombre ñu waxtaan sunu biir pour effectivement décider sursoir à la manif de demain yóbbu ko ba prochainement avec effectivement comme garantie aussi ñoom ñu waxal ñu ni que ñun li ñu buggoon effectivement yaa am na ay ponk yu bëri yi nga mm-hmm. xamante ne euh, ponk yu bëri yi nga xamante ne. ngeen ko ñu lim lim leen ko njiitu réew mi ko waaw mais li ci gën a fës rek mm-hmm. laay ñëw. mooy surtout effectivement la libération euh, immédiate effectivement. des des détenus parce que effectivement événement yii nii moo tax ñu téye leen donc ñu buggoon ñu bàyyi leen le plus rapidement ñoom aussi jël nañ ci ay engagement yu am solo donc euh, on pense que effectivement que les promesses seron respectées loolu nag bu ko nit ñi nangoo c' est effectivement c' est dañu nekk ci esprit wu pacification de l' espace politique parce que soxla nañ ko donc ginnaaw balaa loolu plateforme jàmmi réew mi am na lum ci njëkk a mhm. dox balaa sax effectivement ñuy jëm ci manifeste yi Alioune Tine jotoon na daje ak président de la République et cetera et cetera donc li ñuy wax rek mooy euh, euh, de deux côtés il faut que mu am concession ay concession yi nga xamante ne nit ñi dañ ko ciy def bu ñu ko ci defee effectivement njëriñu réew mi lay doon jàmmi réew mi lay doon nit ñi mën a dalu ci seen liggéey. waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que xam nga depuis le début. Mhm. tension am na Euh, ñu jëm ñu jëm ko circonscrire métti woon na nag parce que jot nañu waxtaan ak ñoom du benn du ñaan parce jot nañu am réunion ak Cheikh Tidiane Dièye ñun ak cadre unitaire bi ak plateforme jàmm réew mi balaa Ousmane Sonko sax ñu koy pour xool lundi bi comme ça bañ a yëngal dëkk bi ñu war ko mën a libéré jàmm ñu ñi dellu donc loolu yëpp dox nañ ko ba li mujjantal bi euh, li muy wax ni euh, dox nañ ci tamit wax ak kilifa réew mi parce que ci ngoon ci jot nañu waxtaan ak moom ne ko vraiment que am na ay concessions yoo xam ne waa euh, m d ak opposition bi laaj nañ ko il faut nga def effort wuyu leen ci loolu ñoom tamit ñu am lu ñu bàyyi ñu bàyyi surtout ñi nga xam ne ñooy prisonniers yi ñu téye ci wàllum politique bi bokk na ci Guy Marius bokk na ci ñeneen ñoo xam ne biram Souleye ak yooyu yëpp mu nekk nag li nga xam concession la parce que tamit euh, y a eu trop de dégâts taux de yoo xam ne euh, benn injustice créé na yeneen injustice gis nañu ay famille yu perte gis nañu ay liggéey yu ñu yàq gis nañu ay station yu yàqu gis nañu yeneen famille tamit yoo xam ne ci la ñuy doon faj ñoom am nañ ci naxaar donc il faut qu'on se retrouve jéem a xool naka la ñuy fa saafara loolu parce que li ñuy wax ay yem ci bopp borom te aujourd'hui muy nekk na këru diine yi te tudd nañ leen ci bëri mm-hmm. na këru diine yi wax na këru diine yi wax mais xam nga këru diine yi tamit la ñuy wax duñ ko wax ci kaw muy fës mm-hmm. dañ koy dox ci suuf dañ koy waxtaan ak nit ñi dañ koy waxtaan ak kilifa yi kilifa tamit boo koy wax booy wax ak moom doo ko tànc ci mbedd di wax ak moom da ngay wax ak moom ak teggin di nga wax ak moom ak yar mu mën la dégg mu mën la amal concession te loolu tamit dox nañ ci ci remercier vraiment Cheikh Ahmad Tidiane euh, Al Amin parce que jéego yu am solo la ci jox gis nañu tamit ni mu ko waxee euh, sëñ Muntaxa li mu ci dox ba lii mën a am euh, ba ñu commencé cadre unitaire ñëw na seeti Thierno nit ñii dem nañu ñun dem nañu Kaolack Ndiassane xool waxtaan nañu ak kilifa diine ñu war a mën a waxtaanal yëpp donc bu bu ñu woowee ci jàmm mënuñu lu toll ñun bu nekkee kasketu diine moo ñu indi ñu indi jàmm ci réew mi la ca des nag ci yeneen question yi yooyu ñu mën ko aborder ak mhm. xel ak tey mhm. am na ay conditions yoo xam ne gis nañ ko gis nañu lu ñu réclamé ni am na mais ci am na ay ponk yoo xam ne société civile bi jébbal na ko président de la république bokk na ci li ci ciy wax bokk nañ tamit le cas de Khalifa Sall Karim Wade ak yeneen yoo xam ne ñoom ñu ngi koy xeex ay demande la wala kii la mais l' essentiel à la fin de la journée nañu xam ne Sénégal mm. benn réew la suñu bos la mm. bu ñu ko yaaxee du ñu dem fenn dañu ñooy ñàkk dafa mel ni bu ma tegoon benn ndaa fii ci digg fii ma ne ko malal mm-hmm. maa ngi koy toj pour ñu tabaxaat ko man ak yow mën nañ fi fekk cinquante ans du mat mm-hmm. mais bu ñu ko defee dañ koy scotché mu bu nekkat ndaa bu nat mm-hmm. donc du ñu jël dëkk bi bu ko toj ba pare ne dañ koy tabaxaat day metti mais nañu xool li baaxul ñu rectifier ko ñu xool ak jeunesse bi ni ñuy waxtaanee ñoom ñu mën leen déglu parce que Sénégal problème bi mooy bu ñu déglu jeunesse bi dañuy xaar ba ba ñu fatt ba seen xol yi fees mhm. ñu soo a comprendre ndekete kii am na problème parce que dañ leen ne muñal rek xaaral rek muñ ak boobu bu nekkee nit ki exprimé wul day créer ay yeneen conditions donc gis nañu yooyu situation yëpp créer na fi ay jafe-jafe mais sant yàlla parce que par exemple ñun am nañu benn jeune bu jóge woon France ñëw réinstallé wu fii Sénégal gëm ne diaspora dafa war a investir fii mais yàqal nañ ko presque 150 millions d' investissement sur la Médina les stations de service Africa kii am nañu ay ay jeunes yoo xam ne jóge nañ fii ay ñoom Juma Thiam jóge France ñëw fii def seen HD ko lépp pour lan gëm ne réew mi mu ngi dox bu nekkee ñooñu ñu ngi jóge bitim réew nekk ay jeunes investir ñu yàqal leen ko du ñu mun a motiver ne yeneen ñi nekk ci ginnaaw réew mi ñëw leen yooyu tamit dañ ciy waxtaan ànd ak dal pour que ñu mën a investissement yi ak jàmm ji ñëw gis nañu médias yi ñu leen sonalee duñ leen yooyu yëpp yoo xam ne tey il faut que on ait une introspection par mhm. rapport à tout ça te kilifa diine yi tamit ci dëkk dëkk bi lañ bokk lu ñu seetaan mu yàqu d'accord dama bëgg préciser benn affaire rek ay ca bismillah amul benn que je vais parler en tant que jeune oui mais je ne parle pas pour les jeunes mhm. parce que dina am ñoo xam ne sama jëmm doyu leen pour représenter wala ñu gis seen bopp waaw mais je vais parler en tant que jeune te xëy na su ma waxee en tant que jeune d'autres jeunes dinañ ci gis seen bopp mhm. donc c'est une précision euh, societé lépp moom moo koy defal day am ay mag mu nekk intergénération lay doon ay génération te dans une société pour que mu mën a marcher damaa gëm ne chaque génération dafa war a bàyyi xel beneen génération <coughs> aujourd'hui mën naa taxaw man ni ci sama xalaat bu gàtt jeunesse bi xaw na tumuranke su ma jógee ci jeunesse bi xaw na tumuranke mani dégluwuñ ñu assez hmm. wala c'est dommage pour ñu déglu jeunesse il faut que yu mel nii am te jeunesse dañ koy gunge ñan ñooy gunge jeunesse mooy mag yi soit dañuy passer flambeau soit dañ lay accompagner soit dañu lay dimbali pour ngeen mën a avancer surtout nag société bu mel nii Sénégal nga xam ne jeunes yi ñoo si ëpp foofu. Hmm. donc négliger négliger cette jeunesse mooy négliger ces force société sénégalaise bi jeunesse bi nag dafa bëri pàcc. aujourd'hui situation réew mi yëpp dañ koo jël ñenn ñi sax teg ko ci ndoddu jeunesse bi. mais parmi ñi génn am na ñoo xam ne dañoo génnoon ci casquette politique. Mhm. parce que dañoo jàpp seen leader. ñeneen ñi génn parce que dañoo gis ne dans ce pays dafa am injustice. ñeneen ñi génn tout simplement ndax ras-le-bol toujours boo ñëwee ci jeunesse bi nga xam ne tey ñun moom la ñu constitué xaw ma nag parce que am na ñoo xam ne ba benn âge dañuy woowee seen boppu jeune dans la société sénégalaise gis nañ fi sax ay nitu 50 ans 60 ans ne ay jeunes lañu mhm. mais bu ñu ñëwee. ku nekk dafa am différent euh, profils yi dafa ute da ngay ñëw taxaw ci la jeunesse engagée man boobu sax moo ma gën a intéressé su ma amee temps développé dinaa si dugg. Mhm. sinon damay taxaw rek ñu taxaw seetlu ci ñaata façon jeune ñoo nekk ci société bi. dafa am jeunesse boo xamante ni dafa engagé réewam moo ko ñor. Mhm. cette jeunesse là danga koy gis ci engagement bu nekk mën nga ko fekk ci biir parti politique yi mën nga ko fekk ci biir mouvement citoyen mën nga ko fekk ci biir entreprise bi fu mu mënti nekk moom day liggéey rek pour que dëkkam mën a jëm kanam nga dem ci beneen euh, type de jeune bi muy cette partie bi nga xamante ni dañuy ut liggéey ba sonn dañuy jël seeni projet di ko déposer ñu koy récupérer damay jël ci frustration différentes frustrations yi am parce que gars yi ñiy wax nañ terrorisme ñiy xiif lu ne dégg nañ ko mm-hmm. mais loolu noonu yëpp amul importance li am importance mooy ñu taxaw xool Sénégal société bi ban type de jeune yaata type de jeunesse la am yi ma jox man sama bët mooy y une partie qui est engagée y une autre partie boo xamante ni dafay vivre ak frustration mooy ñi nga xam ne tey jàng nañu terminé nañu seen jàng war a am liggéey amuñu liggéey ñeneen ñi jël seen i projet di ko déposé gars yi nga xam ne ñoom laa wax ne ñoo war a accompagner génération yi war a accompagner di jël projet yi dootuñu retrouver ci seen bopp ci biir société bi alors que du ñu ay yaafusan ils ont tout fait pour pouvoir réussir et avoir une partie dans la société maye ñu leen occasion bi parce que soit dañ leen voler seen rêve wala dara ba tey ils sont dans ça résigné wuñu sax mais dañu toog defuñu dara nga am beneen jeune bu frustré boo xamante ni moom dafa ne dama frustré mais du man rek maay payer les pots cassés damay am lu ma metti mais su ma amee lu ma metti dina metti ci yow tamit hmm. ak quatrième catégorie bi nga xam ne société boo dem même aux États-Unis di nga fa fekk ay bandi hmm. nga dem France di nga fa fekk ay bandi y a des une couche de la société boo xamante ni jàmm soxu leen dara soxu leen def lu bon suba ba ngoon moo leen sopp maintenant man li ma bëggoon xam mooy sur quelle jeunesse la société sénégalaise bi teg loxo hmm. ban jeunesse la société sénégalaise bi bàyyi xel ban jeunesse la société sénégalaise bi jàpp ne ñooy jeunesse su ma dégloo médias yi récemment. sama hmm. analyse rek laay def de. Hmm. bàyyi xel par rapport à la situation actuelle. bu jeunes yi frustré woon tuuti bu ci yenn nit ñi jàppul woon sur les réseaux ñii di dox ci jàmm ak kilifa diine di dalal munoon na gën a catastrophique. parce que munoo fekk ay nit ñu ne la peut-être dañoo frustré ngeen di am yenn discours yi bu ma ne ngeen di mooy yenn responsable yi sur les réseaux di ngeen gis bu ñu jugee ci ne par exemple ñi ay mbër lañu après gars yi toog dañ ak hashtag wàllu terrorisme jóge ci hashtag boobu dañoo xiif et cetera pour man une jeunesse dañ koy accompagner dañ koy accompagner ba pare jox ko confiance engagement bu ma si taxawee boo leen ma mayee occasion bi damay taxaw jël le cas de de l' là bi nga xamante ni dafa feebaroon. Hmm. pourtant jeunesse bi ñoo taxaw mobiliser xaalis ànd ak mag yi nga xam ne def nañ ci seen doole ba tey ñi ko war a dégg dégg ko jël ko en charge. Hmm. aujourd'hui man je suis en train de construire une maison pour les enfants de la rue à hauteur de ay millions jeunesse bi la ba tey de. Hmm. ñoom ñoo financé je vais prendre l' exemple du Team Nietzsche bi nga xamante ni tey moom moo nekk di réfectionner école yi. je je parle de réfectionner pour que élèves yi mën a nekk dans de bonnes conditions jeunes yooyu kenn waxu leen kaay leen ngeen ngeen yàq seen réew wala dara mm. dañoo jël engagement boobu noonu def ko parce que dañoo gëm ne lii nii moom mooy avancer le réew tim nit si boobu noonu nga xamante ni dañoo nekk di réfectionner école bi nit si c'est un enseignant mm-hmm. daf may permettre ma lu dem ci les jeunes enseignants yi nga xam ne dañ leen di affecté dans les endroits les plus reculés du pays avec cent soixante mille francs dañuy analyser un peu rek mm-hmm. lan moo xaw waral frustration totale yi ñu nekkee nii nii yëpp mooy ne ah dégg nañ problème bi dégg nañ problème bi dégg nañ problème bi ci seen gémmiñ ñoom dinañ ci taxaw boo jëlee enseignant boo xam ne 160 000 francs lay fayeeku par amour pour li muy def ak pour dundal njabootam il va à des kilomètres jeune la pour defar kooku noonu est-ce que da nga koy boole ci jeunes yi nga xamante ni defuñu dara Sénégal jeunes yooyu nga xamante ni ay terroristes lañ jeunes yooyu nga xamante ni euh, dañoo xii non non nga koy boole ci jeunesse bi nga xamante ni dafa engagé mais non accompagné parce que 160 euh, millions yi mënoon nañ ko yokk doubler ko daf may permettre ma dem ci yaay fi muy wax ne pour avoir un pays de paix il faut que balance bi équilibré balance bu équilibré nag mooy nit ñi am nit ñi ñàkk am na sax ñoo xam ne dañuy daw làqatu ci ginnaaw yàlla naan may leen ñu jàmm dans un pays day am ñu am ak ñu ñàkk quand bu bu bu normalee dafay nekk benn balance boo xamante ni dañuy wax inégalité ci société mais quand c'est dafay jóge ci inégalité dem ci injustice te injustice boobu noonu bëri na jeunes yi nga xam ne dañ koy dund seen biir kër yi ci am diplôme munoo am liggéey ci nga xamante ni da ngay tiim sa parent mu feebar pour mu faju c'est un problème nga jàkkaarloog sa yaay dërëm dëkk je ne parle pas de cette jeunesse wax naa la beneen catégorie bi nga xam ne peut-être bëgguñu dara et dama gëm ne catégorie bu ndaw la. Hmm. sauf qu'on a voulu prendre un film boobu noonu mettre ko au devant de la scène gëm ne toute la jeunesse noonu la mel je suis désolée beneen point rek bi ma bëggoon jël mooy bu ma jëlee ay bagage intellectuel bi nga xam ne sax c'est des diplômes teg ko de côté combien de jeunes ñoo fi nekk à l'intérieur du yor seeni toolu papa wala dara jànguñu de doon ci ne mais amuñu semence. léegi bu ñu amul semence lan la ñuy def dañuy ñëw biir Dakar di def beneen liggéey bu ndaw def liggéeyu ndaw di fayeeku loo xam ne bu ñu leen accompagner woon ci seen semence boobu ñu produire loo xam ne sachant que Sénégal mën na produire lu ñu dund ay ati at on est très conscient ñi ngi taxaw ci société bi di analyser li am yëpp war a participer ci développement réew mi mais segam ñi la war a accompagner nag ñoo lay bloqué y a un problème et day indi frustration je ne justifie pas ce qui est en de se passer mais ça serait bien ñu taxaw xool problème yi nga xam ne ñi ngi koy dund pour bu dee solution mën na ci juddu mu si jërëjëf Der jërëjëf euh, naataango yi ak sunu gan yi ak sénégal yi ñuy seetaan euh, ni ko ñëpp defee rek may am kàddu njàll aussi à l'endroit de tout ces familles touchées te Sénégal yëpp lañu ñu touché loolu aussi pour man beneen correction la bu ñu war a def mooy ñu xam ne ñun ñëpp kenn ku nekk ñëpp la ñëpp ñëpp kenn lañ donc euh, te loolu pour man cette volonté commune de vivre en commun nation buñ ko bëggee tabax foog ñu xam ne yitte bu mag lañ war a am pour que kenn ku ci nekk comprendre ne kenn ku ci nekk sa morom nga. ba bu lu métti dalee ci kenn ñëpp mën ko ressentir ndoo mën ko métitlu comme ni mu waree. Euh, donc di leen jaale ñoom ñëpp euh, di jaale tamit di di di jaale aussi euh, les moments surtout nga xamante ni dafay métti ci ñoom tombeek aussi 8 mars ñuy bàyyi xel aussi tout ces femmes. Euh, qui perdent la vie en la donnant parce que dafa am Sénégal ba tey ñoo xamante ni may wax ne boo bu jigéen ëmbee Sénégal koo romb ñu ne yàlla na la yàlla yàlla na nga mucc parce que xam nañ ne le risque il est grand tey rek maa ngi yendu ci biti hors de Dakar mais tu vois un peu li ñuy wax fii yëpp da nga koy gisaat soo génnee jigéen ñooñ ngay romb ci tali bi yëpp ñu toog ñu yor ay buy ñu yor ay gerte ñu yor nangam ñu yor nangam honnêtement dangay gis ne il y deux Sénégal totalement différents totalement lu ne fànn nag kenn du ko jeex pour man euh, ñun ñëpp benn ennemi la am aujourd'hui c'est l'injustice ci forme bépp injustice ci forme yëpp inéquité sociale ci forme yëpp ñun ñi nga xamante ni yàlla daf ñu dafa dogal ñu dëkk ci Sénégal de l'intérieur dañuy gis ne sunu progression yëpp daanaka da ngay gis ne ay échappée solitaire sax moom moo ci am parce que l'inégalité des chances dafa nekk une réalité extraordinaire yenn saa yi même l'information à un certain niveau pour nga am ko pour xam concours bi nga war a def kañ la war a am accès ci yi ñuy wax les mécanismes encore une fois euh, de l'État yi ñuy def pour war ko mettre à l'endroit des jeunes et gis na yooyu am na foo xamante ni sax boo fa dëkkee pour nga jot ci problème la pour nga jot ci di nga gis koo xamante ni dafay paas ñëw ba Dakar juste pour venir prendre une information donc loolu yëpp pour man aussi c'est des choses qu'il faut régler définitivement il faut l'attaquer il faut aussi qu'on nomme les choses je pense que aussi ñun euh, difficulté bi ñu gën a am mooy loolu jamono bi ñëpp ngi woote apaisement ñëpp ngi woote jàmm c'est bien beau ñun ñëpp dañuy woote jàmm te soxna si ma koy delloo njukkal tudd na léegi la plateforme des des femmes pour la paix en Casamance man mii je suis un ambassadeur pour la paix. femme yooyu ñoom ñoo ko def parce que képp koo xamante ni am nga une voix qui porte li lay dimbali mooy nga fexe jàmm am parce que bu jàmm amul dara du am mais jàmm dafa am loo xamante ni moom moo koy moo koy laytaay fin wu processus la processus boobu nag justice ci la bokk équité sociale ci la bokk amul société bu amul problème amut mais li métti ci société mooy ñenn di am problème ñeneen ñi di leen ko teg ñooñu di leen ko teg dem retranché wu daal di nga xamante ni tu vois des zones des espaces où la vie s'est totalement retirée totalement les gens sont à des besoins yoo xamante ni très sincèrement c'est des questions de survie je veux bien que les gens soient à Dakar je veux bien que les gens portent ce combat pour la justice mais bu fekkee ne yow da ngay négocier aussi sur le dos des populations ça pose problème parce que nekk Dakar tu ignores totalement la réalité Euh, bi nga xamante ni moom moo nekk à l'intérieur du pays wala dans les banlieues une réalité extraordinaire nga bëgg a ñëw ne damay wax au non de ces populations là ça pose problème et le c'est le problème que nous avons tous dans ce pays et dans dans beaucoup de pays africains les députés deviennent des députés de la capitale tous ceux qui sont nommés quittent leur ville ñëw tout le monde sa bat ñëppay xeex pour am lopin de terre à Dakar parce que wóor na leen ne fa nga dëkk moom boo fay wut kër sax c'est pour des raisons politiques et politiciennes pour boo demee am fooy recevoir ses militants et on entretient on ne règle pas la question de la pauvreté on l'entretient on ne règle pas les problèmes on les déplace boo demee ci sunu budget ni ñu koy tëggee da ngay gis ne il y a une volonté manifeste d'entretenir les couches vulnérables ci pouvreté boobu ak poupérisation boobu nga xamante ni dangay bëgg xëy na saa boo leen soxlaa rek ñu jóg on parle de l'autonomisation des femmes mais on en parle depuis 60 ans les femmes trinquent ba fii may wax a yow on parle des jeunes aujourd'hui pour man dafa am solo trop ñu waxtaane ko parce que réewu ndaw la ñu yor mm. waaye nag sëriñ bi Euh, loolu ñu leen dikk du da ngay bàyyi ba ñu egg ci état bu jeunesse boobu nga ne ñu réglé ko c' est depuis la petite enfance depuis ni ni muy progressé la nga war a def ci moom ci citoyenneté la nga war a def ci moom ci volontariat ba nga xamante ni bu accès foofu. Hmm. dina xam li ko war ci réewam. madame Diaw junj na ko d'ailleurs dans ah, waaw donc di nga xam ban role la war a jouer. Hmm. ak lan la war a mën a def donc mbir yi pour man c' est est un combat de génération du ku ñu wax nee ñu. suñu président Macky Sall waxee nañu les problème qu'on a remarqué mën nañ ko régler ci benn at wala ñaari at wala ñetti at c'est c'est pas conforme ak li nga xamante ni moom mooy réalité bi la réalité mooy que ne am na ci loo xamante ni da ngay jeter les bases ñu fas yéene koo régler définitivement moo tax ni nga libalee sa sujet bi nii c'est tellement important plus jamais ça mm-hmm. mais le ça c'est quoi mm-hmm. plus jamais ça les conséquences wala les causes mm-hmm. lépp Pape Djibril lépp. donc il faut que ñu d' accord ci les le sa le ça si sa le ça mooy les causes loolu nga xamante ni moom moo jur les conséquences donc nañu régler leen waxtaane li nga xamante ni aussi c' est une violence qui s' est exprimée d' façon malheureuse ñëpp déploré ko mais euh, tout le monde avait vu venir malheureusement. en fait moi je ne reviendrai pas sur euh, on n'écoute pas la jeunesse parce que effectivement ça a été dit plusieurs fois ici. à travers la voix de Pape Djibi, à travers la voix de différents jeunes qui ont été invités ici. C'est-à-dire, en fait, le mensonge, il est permanent dans la gestion de ce pays-là. C'est-à-dire, si on ment permanemment, il am forcément une conséquence ci nit nit ñi di dundee jeexital bi mooy li xew nii je ne suis pas d'accord quand Charles dit mm. que oui, ça a été planifié. Rien du tout n'a été planifié. C'est-à-dire, c'est un ensemble de frustrations qui a trouvé un prétexte. mu ñëw sukkandiku ci prétexte bi effectivement pour exprimer une colère c'est l'expression collective d'une colère à travers des jeunes, effectivement sans emploi. Et le président de la République lui-même, dans son discours, a mmh. dit, j'ai saisi, j'ai compris. Je vous ai compris. Ouais. Je vous ai compris. Non, je vous ai écouté, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Oui, je vous ai je compris. Écouté, je vous ai compris. xam nga loolu bu ko waxee c'est effectivement ce qu'on attendait que ñu am humilité wu effectivement wax ni parce que Maintenant, ça contredit, je ne vois pas vos brassards rouges. Ça contredit énormément de choses. Ce pas important qu'on y revienne parce que nous avons processus de pacification de l'espace. Mm. C'est quand même important. Parce que si nous avons la faute avouée, est à moitié pardonné. Alors, nous pouvons comprendre. Parce que effectivement le président de la République a parlé dans ce sens. Et c'était bien avant 2012, c'est-à-dire c'est pour la première fois depuis que Macky gouverne ma déggee ko mu waxee de cette façon avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité sénégalais yi loolu rek lañ soxla et que le contexte n'était pas ne lui était pas favorable parce que effectivement on ne peut pas saisir un contexte de crise sanitaire pour effectivement créer des créer des situations politiques parce que effectivement on a voulu s'appuyer d'une ci benn crise sanitaire pour régler ay questions politiques c'était inélégant et plusieurs fois l'alerte a été sonnée plusieurs fois fii nit ñi wax nañ ko plusieurs fois pour man soxlawul sax ñu ciy dellu si waat c'est-à-dire on ñëw fii sax di wax on impute la faute à une partie de la jeunesse gars yi waruñu taal gars yi waruñu lii encore une fois kenn buggul dëkk bi tàkk personne ne le veu hein même si les gens des fois sur les plateaux s'expriment avec beaucoup de colère nit ñi bëgguñ dëkk bi takk mais daf lu nekk dafa am lu koy jur li jur situation bi tout on le sait on a des ministres qui ont cinq voitures qui habitent dans un quartier à côté la famille ne mange pas c'est loolu c'est c'est ce n'est même pas décent c'est c'est du tout correct dafa am benn anecdote bu simple hmm. ñaari famille yu dëkk côte à côte benn famille bi tout le temps dafa naan may ma ceeb may ma diwlin may ma suukar dese woo mburu benn jour famille bi ëppale maire bi yónni doom ji ci beneen maire bi ne ko demal ñaanal ma ko xorom hmm? mu ñaan ko xorom bi mu ko moyee xorom mu ne ko may yaay lu tax nga may yónni ci ñii nga xamante ne amuñu dara te pourtant yow am nga xorom mu a dama bugg ñu bugg dama bugg ñoom aussi ñoo xam ne ñun mën nañ leen di soxla ay nawle lañ daal ay nawle lañ c'est important c'est-à-dire écraser l'autre hmm. écraser l'autre la rapport qu'on a avec la réussite est un rapport très très sévère Violent même. C'est-à-dire on définit les gens par rapport à ce qu'ils ont, mais pas par rapport à ce qu'ils sont. C'est-à-dire li nga doon li nga am mais pas li nga doon. C'est-à-dire li Cheikh Omar di représenté ci xam-xam ci jikko c'est pas le plus important. On dit xale carte gap. Hmm. xale fashion xale temps xale temps on a matérialisé notre société. mais alors que dañu am suñu société am ay maam am am fi ay baaxu maam yoo xamante ne effectivement il faut effectivement qu'on nous gouverne à partir de chose choses là mhm. ñu dugal ko ci biir école yi xale yi xam ko ñëpp xam ko ba pare politique yi nga xamante ne ñoom la ñu wóolu wooteel leen pour ñu jiite ñu ñu jiitu ci comportement yooyu parce que quand dama leen di jiite ci sobriété ce n'est pas ça ça n'était pas nekkul woon ci programme yeneen partie ça a été c'était e, e, inscrit dans le programme de de yoonu yokkute mooy je vous gouverne <coughs> ci je vais gouverner en toute transparence et en toute sobriété loolu nag boo ko waxee nit ñi du lu ñuy wax lu ñuy jëfe la ça c'est des comportements très importants xam nga en fait parce que xam nga une jeunesse quand elle n'a pas la possibilité de se radicaliser à travers des mouvement bokk ci pour di ci wax xalaatam quand elle n'a pas la possibilité de se radicaliser effectivement parce que lépp ay forme de radicalisation la ah bokk Y'en a marre une forme de radicalisation en dix disant que damay saxal garab damay waxtaane démocratie mais ñeneen ñi ils disent je me radicalise en prenant les armes parce que lép situation moo koy waral léegi nag on peut ensemble éviter les choses par exemple de 2000 de 2012 à maintenant l'État du Sénégal a mis plus de 680 et quelques milliards pour la jeunesse li doon yoon mooy effectivement ñu teg saytu ne effectivement fan la loolu jaar mm-hmm. parce que effectivement le président peut avoir de belles idées mën na am xalaat bu rafet mais effectivement daf ko dénk ay nit ba pare teg ay organe de contrôle organe de contrôle yooyu ñu ngi tudd IGE ñu ngi tudd nag ñu ngi tudd tel ñu ngi tudd tel mu bañ a nekk en fait affaire kumba am ndey ak kumba amul ndey c'est-à-dire au lieu c'est-à-dire les options doivent être sociales elles ne doivent pas être politiques mmh. quand on effectivement oh xalifa Sall il prend du poids politiquement et Idi mu ngi prendre du poids politiquement xaaral ma wut ay pexe yu ma leen indee ci sama boor pour gën a fort politiquement alors que les préoccupations sociales. Mm. boo leen réglé wul loolay lay dablas et c'est ce qui est arrivé. on a amené Khalifa Sall on a on a amené Khalifa Sall en prison mm. on a euh, amené Karim on a effectivement cette histoire avec Ousmane Sonko et qu'est-ce qui s'est passé les gens se disent mais attends même bu ñu xamu parce que fondamentalement est-ce que vous savez que dans dans les manifs il y a des jeunes qui ne connaissaient pas Ousmane Sonko. Il y a des jeunes qui étaient dans la dans la manifestation qui connaissaient pas Ousmane Sonko. Oui, et heureusement que Ousmane Sonko a eu la décence de dire que effectivement les gens ne sont pas sortis pour moi. On a besoin de cette lucidité là mm. par rapport à ceux qui nous gouvernent. Mm. Il faut que ceux qui nous gouvernent il faut que ñu nawloo ñu buñ ñu nawloowul rien ne marchera oui. ñun demande que ça c'est-à-dire depuis des déc depuis des années depuis les indépendances li nit ñi di laaj mooy nous demandons à être bien gouvernés mm-hmm. est-ce que le peuple sénégalais a une fois demandé à quelqu'un qui aspire à diriger ce pays à lui promettre ce qu'il ne peut pas faire une fois élu non les électeurs n'ont jamais demandé à ce qu'on crée des montagnes d'or, à ce qu'on fasse de Guédiawaye une ville, ce qu'on demande, une ville lumière, on demande à ce que qu'on crée les conditions d'épanouissement des oui. jeunes de Guédiawaye wut loo leen liggéey que yoon yoonal ñu doomu diw bañ et puis arrogance lu tax arrogance baaxul hmm. da ngay toog ñu ne la doomu ministre diw démb moo nekkoon aux Almadies chicha alcool wii oui, et cetera et cetera pendant ce temps doomu Moussa Dieng qui qui est à l'usine de Yaraax di defar ay plastique wala saabu il est mort asphyxié wala en fait à la fin du mois il court derrière son salaire ah def ay grève takk morceau bu sonk xonk pour ñaxtu nga ne ko nga ne yow doo gis morceau bu xonk hmm. et puis les espaces d'expression qui auraient pu empêcher cette violence physique ont été étouffés mm. parce que y' a énormément d' espace yu nit ñi mën a waxee nit ñi Sénégal dëkku exutoire la. parce que boo toogee nit ki naan la lëmbal bi may lëmbalal duma ko lëmbalal jeeg bu ndaw lànk naa bañ naa su ma ko defee damaa neex c' est une forme d' exutoire important. dans ce pays suñu réew dañu soxee yu mel noonu ah góor bu gisee lu ko jaaxal nopp ya taxaw ba ñëw fange. affaire yi ku nekk mën nga ci am sa analyse euh, parce que quand même dund nañ fi politique nag. dund nañ fi Ablaye Wade contrat bu Diouf ça a été très violent moment bu ñu fàtte ne ceenu ceenu vélo yi ñu doon jël di dóorante ñuy attaqué loo toj fi ay car sotaak avant nous y avait 68 qui était très douloureux après vivre nañ fii euh, les euh, l'arrivée de de de de de de de Macky avec ñoom malal Y'en a marre mhm. ñoom malal ñii maa lañ njëkk jox micro université mu ngi ni toog ba kenn sañu lay jox micro man maa ñëw ba ci ñëw mhm. tàllal leen micro jox leen mhm. c'est la liberté d'expression mais nag dafa am loo xam ne mënuñu ko nangu te buuba maa ngi koy remercier ci loolu man bugguma ko ma bun xalaal si sama liberté d'expression da nga mën a réclamer yow say droit noonu nga war a am respecté droit wu ñeneen moo tax ba affaire yi commencé man dama ko bind sama page ma ne bu degsee bu dul kenn man kese ci Sénégal pour défendre li nga xam ne tey mooy le Sénégal dinañ ma fekk seen yoon parce que nag nee naa Sénégal makisal Sall moomu ko Ousmane sonk moomu ko Charles moomu ko Malal moomu ko dañ koo bokk man mën naa toog ne je revendique mon droit constitutionnel pour lii de la même chose Cheikh Omar mën na taxaw ne je revendique mon droit constitutionnel pour la paix parce que j'aime mon pays chacun a une histoire dans ce pays Charles wax na ko ñun màgg nañu Karak dundu Koladeraay fekk nañ ko lu ne fekk nañ ko fi mais dañ doon ànd ci symbiose dañ doon ànd si jàmm mais dëkk bi dañu dem ba ku nekk noonu keneen ki la c'est-à-dire que bu mën na àndul ak suufi tey ñu noonu loo mag suufi ce n'est plus une question de compétition de gagner de perdre dans la dans la dignité c'est une question de violence verbale et je le vois je le vis dans les réseaux sociaux je le vois un peu partout que les jeunes se tapent très fort et ils ne se pas sur les questions d'idées gis nga mën nañu wax ay liggéey amul man j'ai pris de mois ba ma nekkee député pare mala la ngi nii xam na li may wax dama pare on m'a tout proposé ma dugg ma delluwaat assemblée nationale ma dem créer benn observatoire observatoire man rek maa fay mag ña si des ñëpp le minimum d'âge vingt cinq ans la ñu am mais je fais là-bas quoi je les coach Aliou Ndiaye mu ngi ak man depuis 2015. ma koy formé. Marème Soda bi nekk député def na trois ans avec moi ma koy formé. ñi nga xam ne tey moom ay ñoom Khadija Diakhaté ay ñoom Manu dama leen jël université indi leen aw ma xaalis aw ma dara mais je les forme di leen tàggat. Révocable Marème Soda mu ngi fa di def liggéey bu am solo volontariat la koy defee gëm dëkkam mais tu peux pas dire au Sénégal kii mooy gën a bëgg dëkkam que kii. te kenn wul génn dëkk bàyyi. tu peux pas il faut qu'on revienne à la raison aujourd'hui lii ñu fiy wax yëpp euh, je suis désolé mais am na fu ko politiciens yi eggul te waru fa woon egg parce que nous on attend de nos hommes politiques ban boog bu may def politique qu'on ait un débat d'échange d'idées nga teg ci table bi nga ne ma la situation de la jeunesse c'est quoi quelles sont les solutions à apporter Pape Djibi wax xalaatam ma ne ko non Pape Djibi je suis pas d' accord parce que li nga wax structuré fii ak fii ak fii ma jox la solution par rapport a ça man la par rapport a la pandémie le secteur li nga xam ne moo gën a crucial tey mooy nañ ko yóbbu agricole agriculture l'université prenons trois mois ne jeunes yi boo leen demee boo leen demee ci Babacar Ngom fële muy def agriculture am jox leen ko mu defal leen benn diplôme ngeen def ko crédité ko si seen cours yi moo gën ni ngeen toogee nii te defu leen dara mu nekk stage mu nekk formation les jeunes aussi aujourd'hui Sophie ils ont un problème de coaching ils ont un problème d'orientation ils ont un problème de responsabilisation et ils ont un problème d'évaluation jeune bu la ci génnal man j'en j'en vois chaque jour ñëw sama bureau damaa bëgg liggéey la ma lay njëkk a laaj mooy lan nga xam mais ils ont un problème de savoir lu ñu bëgg seen bopp donc avant que tu n'investissent encore 300 milliards écoute comprend et essaie de voir aujourd'hui fan la faay yi nekk mhm. ak fan lañu kii gis nga gis nga bëgg pandémie bi amee mhm. ma jox liggéey jeunes yi ma àndal Cheikh Omar Thiam ak Manu benn liggéey bu ñu denkoon ci pandémie bi mhm. mais ils ont fait un travail excellent sur Ndengler ak Diamniadio et je l'ai je l'ai donné au président mane ko mais autour de Diamniadio créer des serres agricole xale yi di dem di fa liggéey mu nekk de une sécurité alimentaire de proximité. Mm-hmm. ñii di jënd si à côté di dem pour au moins ñu am lu ñu téyeegum. Mm-hmm. mais aujourd'hui les DAC et les PRODAC ce sont de bonnes choses mais au lieu ñu koy jox état bi du ko parce que la faute de l'état en réalité c'est que l'état veut devenir entrepreneur. l'état ne peut pas être entrepreneur. il peuvent dire que on a investi 600 milliards ça ne peut pas se justifier parce que le secteur industriel est faible. Mm-hmm. tey ñi ñu waroon dóor tey. c'est pas seulement ay dem ci Macky dóor ko parce que liberté d'expression nañ ko fi wax je peux aller jeter des cailloux ñoom malal li ñu wax nii yëpp on a fait ça ensemble mais je jette des je ma casse affaire yooyu ma ñibbi si ne la grand Charles jox ma ndox ma naan mais tu n'as pas réglé son problème il est libre il parle il est démocratique il parle mais le gars a faim le gars a soif c'est pas une question de liberté d'expression pour moi c'est une question temps yi dem di yàqi parce que je préserve mon ngay wax li buuba di wax jour boobu muy am tension fii directeur bi di wàcc fii fii lañ fekk ñuy def émission ak Abdoulaye Cissé mm. on était tous tendus ma génn man ma ne ma ne maawa man ne ko booy ñibbi naa ànd ak yow mu demoon non non c'est pas la peine et pourtant bokkuma ak moom dara mais dama gëm ne ne sénégalais la pour man nekk na APR il a des idées à défendre mais il n'y a pas une nécessité de menacer des gens d'aller sur les réseaux sociaux di filmer kër jaamur di ne dem leen lakk <laughs> il faut qu'on revienne à la raison depuis quand on est soit on est des Sénégalais soit on est des sauvages te man li may wax c'est la responsabilité des politiques mm-hmm. yow jiite woo su fi jiitewul yow jiite woo buuba jiitewul kenn jiitewu fi c'est les politiques ñooy jiite ñoom ñooy bëgg am pouvoir mm-hmm. donc le discours c'est eux qui le portent ils le porteront soit avec responsabilité ou ils ne le porteront pas avec responsabilité on va chercher des gens qui vont le porter parce que nag on a de dire on va choisir tel pour diriger notre pays mais bu ñu demee nag ba benn instant boo war ñu bun xataal man nee naa Sénégal kenn mënumaa bun xataal ba du ma wax lu ma xalaat 12 ans Macky lu mu wax seetaan ngeen ma ma teggi teg fële mais musuma manqué Macky respect c'est le président de la République et il le restera tant que la constitution le laisse en tant que président de la République mais chaque jour où je ne suis pas d'accord avec le président jar na may saaga jar na may xeex maintenant il y a des moments où au moins dans des nations on l'accepte il y a des tensions ñi ñi génn xulo xeex sànnante xeer moomu am fu muy dal parce que aussi après la guerre il faut la paix mais li wax dafa am solo il faut pas faire fii chaque jour de ces problèmes la parce que ça va être récurrent il faut arriver à un moment on s'arrête on les identifie on les quantifie <coughs> ni ko Pape bi waxee boo génnee Sénégal Dakar bi tu vois les ñuy jaay sow ci yoon bi loolu la ñuy am tu vois des femmes qui marchent des kilomètres pour pouvoir aller travailler des jeunes qui font des mais il y a une il y équité économique dans ce pays qui ne dit pas son nom je dis sur un territoire de 544 kilomètres presque plus de la plus de la moitié du budget mais les autres régions là vont être frustrées quand tu prends un terre tu mets autant de ressources pour que 13 régions yi fay ko te ñoom seen yoon nekku ci tu crées une inéquité sociale grave quand tu crées le BRT alors que toutes les autres régions treize régions amuñu dara lu fu ñu doxoo ak fu ñuy lekk tu crées une équité inéquité sociale et ça aujourd'hui il faut qu'on apprenne à revenir vers l'essentiel gis nga li nga wax ci mandat bi dafa am solo depuis 2019 j'ai dit que le mandat n'est pas une question politique c'est une question économique et on l'a vécu on a perdu 10 milliards presque des stations de service et je suis gis nga xam nga man je défends mon ami Guy Marius Sagna moom mën na défendre jaaykatu gerte caax bi comme mën na dem défendre wu koo waaw ji mani baax na liggéeyam dem défendre wu mais aussi qu'on se dise la vérité gis nga affaire u patriotisme ak panafricanisme je suis d'accord mais y a la réalité économique gis nga la réalité économique mooy lan 1700 travailleurs ñoo nekk Auchan 1700 travailleurs je défie un de vous ici ñu toog ci plateau ñu ne mu mus nañ dëgg Auchan gis tubaab boo fay liggéey amul qu'on me dise que quelqu'un gis na dugg na Auchan gis ci rayon Auchan yi ak ci biir surface Auchan benn tubaab bu fay liggéey ma jox la sama salaire mois bi ma jox la ko amul qu'on se dise la vérité 60 pour cent des produits sont achetés au Sénégal par des sous-traitants ndaw si créé na juyam e mu koy jënd par Auchan kii defar na poobaram markam ñu koy jaay Auchan kii di defaram géejam ñu koy jaay Auchan tu veux faire croire que c'est à travers ces outils-là que tu vas créer, régler le problème de l'impérialisme. Mais le gars qui est en haut, il, il, est en train de te rire. Parce que tu as créé 1000, après. Parce que ñii nekk Auchan te liggéeyu ñu tey demal bu Liberté lakk nañ pourquoi a un projet. quelle fin on doit man sàccal sax je comprends mais à quelle fin on ñu taal benn Auchan parce que jël nañu et et on l'allume man man sama benn sama benn nijaay mu ngi may dëppal ils ont moo moom moo loué Auchan ci suuf ay Aïdara doom ji woo ma complètement affolé mu ne ma mais ñoom nee nañ leen nañu jël ñu ne non du ñu yem rek ci jël dañ koy taal alors que le vieux c'est son immeuble toute sa vie il l'a construit ça n'a rien à voir mu ñu ngi dëkk foofu ils ont appelé la police ils ont appelé tout le monde mais c'est pas normal c'est pas normal ay jigéen ñu doon traverser ay ay autoroute ñu dagg seen loxo dagg seen yére sàcc seen i affaire toj seen i oto ils n'ont rien à voir alors on doit on situer les responsabilités mm-hmm. nee nañu fii de nekk chaque chose dafa war a am ay cause bu amee cause day am ay conséquences mais tamit bu ñu waree jiite réew mi sur la peur mm-hmm. et la torpeur ah man de du ma ko nangu mm-hmm. je ne suis pas d'accord sur cette formule de faire de la politique on l'a fait avec des idées parce que tey ñi ñun ñun ñi ñu ko jàkkaarlool ëpp lu ñu xel ëpp lu ñu xam-xam je vais le dire une fois pour toutes pour ngeen xam ko je vais donner l'anecdote moi j'ai sacrifié ma mm-hmm. Mm-hmm. le savent pas te loolu laay sant sëñ Mansour Sy Djamil j'ai eu des problèmes avec mes papiers j'ai fait cinq mois de détention ñu déporté ma indi ma fii sama sama jabar nekk en état deux jours laa def Sénégal ma tourné le dos ma ne ko toogal jëlal alal bi ma am yëpp je recommence à zéro mais su ko jooy kan moom mu ne ni fii tey moo mu gën a patriote je l'ai fait suis resté cinq mois tu sais pourquoi je suis resté cinq mois. Hmm. alors qu'on m'avait donné la possibilité de revenir tey mën naa dellu États-Unis parce que ma femme était enceinte elle était en train d'apprendre pour am certificat de sage-femme mu ne ma chaque jour mu ne ma nooti sol ma ne ko tant que amoo sa certificat fii du mu fi jógee le jour où elle est venue elle m'a dit que j'ai ton mon certificat j'ai fait je suis ne ko may tuuti je vais te montrer que je j'ai la possibilité de retourner. Mais ce sacrifice, quand je le faisais, j'ai dit à Seigneur Mansour Djamil, je reviens pour reconstruire et participer à la construction de mon pays. Et je ne pas regretté. Donc, quelqu'un qui sacrifie son outil de travail pour jox ko Sénégalais yi lu mu wax ci Youssou ñu dañu judd fekk ko fi kenn mën na ne ne Youssou Ndour tey ñun ñi fi ñëw ñoo fi ñoo ko gën a liggéey dëkk bi c'est pas possible il faut qu'on on accepte dans ce pays à respecter les gens il faut qu'on accepte dans ce pays waa Atlanta ñu ngi may déglu waa Cleveland ñu ngi may déglu quand il y a eu des difficultés aux États-Unis dama doon taal sama moto jógee Atlanta dem New York dem fii dem fële di jàppale sénégalais yi mais je le faisais pourquoi parce que j'ai l'amour du prochain mais si bu ñu toogee ba ci dëkk bi nag man mën naa la nangul suñuy différence bokkuñu mais du ma la nangul nga saaga ma loolu duma ko nangul benn sénégalais et donc il faut qu'on revienne à la raison dafa am lu ñu suñu maam yi bàyyi fii Sénégal n'a pas commencé en 2016, n'a pas commencé en 2014. Le Sénégal a commencé bien avant ces événements-là et ñi ko fi soxla dinañ ko fi bàyyi seen ginnaaw duñ ko nangul kenn mu yàqal ñu suñuy réew. Maintenant, on sait qu'on n'est pas un pays parfait. On sait qu'on a des difficultés, que notre Assemblée nationale n'est pas à l'image. Sophie, ñun suñu combat xam nga lan la day qu'il y pour cent de jeunes à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour qu'ils puissent s'exprimer et dire par rapport à la société. Parce que si cet outil de communication n'existe pas à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on va faire voilà loolu mooy xeex bi nañu yóbbu xale yi fi ñu ko jooytoo ñu nekk fa ñu mën a jooytul seen bopp parce que le pays nag du ñu nangu kenn kenn kenn kenn yàq ko et ça dinañ ci taxaw farlu ji ba nga xam ne tey Sénégal on va le préserver bon que, quelle mentalité c'est-à-dire. Mm. balaa ñuy wax waxu mentalité ak place des jeunes. Mm-hmm. ci biir assemblée nationale nañ taxawaat suñu place ci biir société bi. ci parce que c'est important. Mm. assemblée li fa ne ci député yëpp ñiy kaas problème mu askan bi entreprise yi ah, boole waaw li fa ne ci député yëpp ñiy kaas problème mu askan bi bu ñu doon def évaluation situation yi. Mm-hmm. ndax ñi ngi avancer à grands pas wala à petits pas. muy benn deuxièmement entreprise yi. dañuy stage loo nit ñi stage loo nit ñi stage loo jeunes stage loo leen ba ñu dagg. ki lay defar loo le matin te bokkul ci stage bi de. sax de boo xefee yaa ko ëpp compétence ca la mu lay sant. kon mis à part sax pouvoir de décision bi ñu bëgg jox utilisation ci jeunesse bi il faut que mu cesse. li ma bëggoon man wax. mooy dama dégg tonton Charles ne ça c'est désormais ça. Hmm. man dama ko ciy tegal sans nous. sans cette jeunesse consciente. xam nga lu tax may wax sans dañu maar di nekk añoowu sacrifice société. combat politique yi bu jeexee jeunesse bi la ñuy taxaw ne moo def moo wax. et quand il faut mettre la lumière sur la jeunesse bi ma leen di wax yéen di leen ko présenter depuis début plateau bi ngeen yàgg ko am parce que y a pas Djibril et cetera ñenn ñi duñ ko nangu gis. ah ah moom waaw mën na ne de du ma ko weddi de du ma ko weddi du ma ko weddi donc su ñu ne désormais ça damay wax ne ça sera sans nous mën nañu porter nag combattre du ñu ko bàyyi mais nag façon bi nga xam ne ñun ñoo koy décider pas bu ñuy imposer wala bu ñuy bëgg wan société bi et ça a depuis c'est même dans les foyers c'est-à-dire bu ma ne du ñu nekk añowu sacrifice kenn dama ciy tegaat ne encore une fois du ñu nangu à chaque fois ñuy bañ a xam xool suñuy ressenti wala suñu et ça commence dans les foyers même dans les foyers parfois Macky bu ñuy jël décision dañuy jël xale yi ni leen coppet kenn du leen calculer ba conséquence yi ñëw daj ci seen kaw si vous ma permettez. Mm-hmm. gis nga euh, euh, euh, dafa am point yoo xamante ni dama ko noté parce que dama bëgg ñu utiliser jeunesse bi à des fins d'intérêt général. Mm-hmm. ñun bañuñu ku ñu utiliser mais à des fins d'intérêt général. Mm-hmm. boo xam ne inégalité daf fiy dañ. injustice daf fiy jóge yeneen ak yeneen daf fi jóge man je suis allé à Kédougou j'ai vu une dame bu may expliquer ne dafa yanu siwo ndox di dox ay waxtu pour am siwo paanu ndox. j'ai fait le tour du Sénégal dans le domaine humanitaire j'en profite pour rendre un hommage à tous les membres de l'association Les Racines de l'Espoir di gis li Sénégalais yi di dund pourtant je suis jeune j'ai fait le tour du Sénégal aw ma benn budget kenn joxuma ay millions c'est la jeunesse ñoo ma accompagner aujourd'hui boo duggee sur les réseaux sociaux di nga leen gis ne ñi ngi lay booster et cette jeunesse a besoin de parce que lu ñu bustante suñu biir on n'a pas besoin d'adulte bu ñu nañu ñëw leen assemblée euh, euh, euh, taxaw fa wax alors que gis nañ ne ñu ci ëpp il faut ñu nekk ci ay parti politique jeune bi bëgg taxaw assemblée nationale te apolitique à 100 pour cent nu muy def il y a d'autres questions points d'interrogation yoo xam ne war nañ ko poser est-ce que coûte que coûte da war a dugg ci instance politique yi muy beneen point d'interrogation dama gis ci discours président hmm. mu wax a wax wax ba ne fàttaliku leen ceeb yi ñu leen fi joxoon ma gis maître El Hadj Diouf ndeysaan moom tamit wax na ba ne dafa am ay nit yu ñëwoon lekk ginaar euh, seeñu ba yóbbu yax yi. ak pomme de terre yi yi. Mm. c'est-à-dire dañu xiif. Mm. d'accord dañu xiif. on peut être bien d'accord. Mm. maintenant xiif boobu solution bi bëggatuñu ñu ñuy jox ñu lekk. xam nga lan la ñu bëgg. ñu mettre ñu ci ay conditions yoo xam ne ka ñuy jox ñu lekk bu fi jógee ñu mën a produire li ñuy lekk. mettre des gens dans des condition yoo xam ne doo leen nourrir seulement. jeunesse du jeunesse boo xam ne dañu koy nourrir seulement xiif boobu noonu ñuy wax inégalité yii nii ñu fi wax moo ko fi indi des gens extrêmement riches et des gens extrêmement pauvres kooku bu xiifee nga koy joxoñ di ko wax ne yaa xiif lu ñaar nit war a lekk tey bu fekkoon dañuy partager dara ci plateau bi ñu jël lépp jox ko malal mu ne dëndax c'est normal que les autres ñu xiif mais waroo pointer ci xiif bi et puis xiif boobu tamit buñ ñuy jox buñ ñu jox tamit ñuy lekk on veut ñu mettre ñu ci comme on di balaa ngay jox nit jën jàngal ko ni ñuy nappee on veut une jeunesse bu ñuy jàngal ni ñuy nappee euh, euh, euh, et puis diversion bi nga xam ne tamit ñu ngi koy defal jeune bi on n'est pas bête que gis nañ sax keneen wax ba ne lutte ñu gis ne tuuti rek dañoo ubbi stade yi tuuti lañ ci teg gis ne ubbi nañ stade bañuñu ko ñu ngi encouragé suñu mbokk lutteurs yi nga xam ne seen liggéey dafa stand by depuis mais soyez conscient que cette jeunesse ne va plus accepter ñu leen di divertir parce que loolu la ñu yàgg wax nee nañ ñun diversion moo ñu neex je suis là pour note quelques points yoo xam ne franchement man en tant que jeune metti na ma mais diversion boobu dootuñu ko nangooti ak ci plan bu mu mënti doon parce que s'est rendu compte que aujourd'hui bu ñu jugul pour góorgóorlu liggéey suñu réew jàppale mag yi fi nekk nga xam ne liggéey seen réew kase moo leen tax a jóg réew mi du avancer mais on ne le fera pas avec une diversion diversion boobu nañu ubbi kii yi ubbi leen y a une jeunesse boo xam ne divertir moo ko neex comme dans toute société mais du ñu nangu euh, diversion bi les promesses ñu remplacer ko par des actes xam nga lu tax euh, digge digge digge digge digge digge ay année digge digge digge ay emploi digge digge digge digge nañ ko def ay actes yoo xam ne tey jeunesse bi bu ñu taxawee dinañ ne ñun lii mën nañ ko laal mu nekk ci lu lu palpa moo tax man pour nga dugal ma ci politique problème la problème la man Sophie personnellement parce qu'il y a tellement eu de promesses dans cette société non tenue ndax dama dem dans une région di ko laaj gis leen ni ñuy dundee du ñu am ndox dañuy wulli pour naan foofu euh, côté du du Kédougou wu wulli lañ koy woowee kii du wàqi dañuy gas pour naan des daam ma ne leen kañ j'ai fait bêtement benn question kañ ngeen gëj a gis politicien xam lu ñu ma répondre ci élection yi ma xam ne man sama aqulaay taala mënu ma nekk politicien parce que quand pour avoir un pays tu peux faire le tour du Sénégal xool conditions yi ñu nekk yëpp dik leen ay affaire man waxuma président Macky Sall kase ah parce que suñu papa yi dañuy toog di waxtaan ak ñoom ñu ñuy wax comment était le Sénégal depuis les années 60 c'est-à-dire problème yi di di di à dire à cause aussi des promesses non fenn rek laa la la laay laay laay daane aussi mooy violence yi ngeen di wax gis naa ne amul benn parti bu ko cautionné s'il vous plaît essayez de voir quels sont les jeunes qui qui ont fait ces genres d'attaques là avant ñu ñuy yóbbu couvre-feu il y avait des agressions il mm-hmm. y avait des agressions un peu partout sauf que ñooñu boobu dañu amoon champ libre pour di agresser mm-hmm. léegi dafa am ñoo xam ne dañoo profiter ci lii parce que ñi doon génn pour citoyenneté taaluñu ñun ñii les les gars yi xeex pour citoyenneté gis nañ leen de même président Ousmane Sonko mi ma gis quand il est sorti aller jusqu'à dire que bu leen sax dof bay dem di déloger ma parce que pays bu démocratie ma ko koy ma parce que c'est phrase bu ma tenir la pays bu bu bu ñu bëgg dëgëral démocratie am du def loolu ay jeunes derrière cet homme la je pense pas parce que pour man booy topp un leader da ngay topp idéologie ak façon de penser ak li muy incarné donc gëmuma ne ces jeunes là ñoo taal donc dañuy d'accord yéen pour ñu édifier ñu effectivement ñi demoon di taal parce que ça vaut ci honneur ci honneur euh, euh, euh, toute toute une jeunesse yaay booy da nga wax civisme yar ndeysaan ñun bu ñuy woo ci ci ci bàyyi ñu xel ci wàllu nga nekk xale ñu coaché la dañuy wax mag yi ñu bàyyi xel tamit ci dama ko wax récupération ak encadrement mm. gis ngeen même cette jeunesse bi ma wax ne infime la mm. nga xam ne soit soit bu dee ay bandi lañ wala ay agresseur wala dara war nañ leen peut-être récupérer wala dara da ngay xool këru sëriñ yi sur këriñu këru sëriñ yu mag yi moo xam nga dem Tivaouane wala nga dem Touba damay nuyu waa kër sëñ Abdou Karim bu sëñ Fallou sëñ Galas ak sëriñ Saliou ñu ngi may nuyu c'est-à-dire jeune boo ko xoolee rek dàq ko parce que dafa bon wala nga taxaw di enfoncé ci da nga bon da nga bon da nga bon du changer on a ñun ñëpp dañu am droit à une seconde chance tey mën nañu tenir yeneen discours face à cette jeunesse lu dul ay inconscience wala dara da ngeen a xiif rek la ñuy dégg tey yéen a toog fii ci plateau bi di am un discours boo xam ne tey mën nañ ko dégg mais depuis dañ ñuy pointer doigt ci kii donc bu ñuy appelé ah ah ok <laughs> donc bu dee dañ ñuy woo ci ci ñu delluwaat ci yar gi dañuy waxaat woy jur wi tamit ñu yaatal ci wàllu encadrement ak récupération parce que njaboot kenn du ko sànni te ñun seen njaboot lañu ak nu ñu mënti mel moo xam Sophie mi fi toog di wax ak yéen jeunesse bi dem taal wala dara seen njaboot lañ et justifié wuñu ko dañu muselé nag média bi euh, kii doon wax nu mu tudd buuba c'est-à-dire ñun la jeunesse dañoo muselé fa ñu war a waxee heureusement touché na ko ministre bi gën a euh, âge am gën a ndaw xam ngeen ko député bi âge am gën a ndaw Mariam Soda la on a eu cette chance oui. très euh, mais Mariam Soda la ñu jël foog naa à part moom est-ce que mën nga ma jëlaatal beneen tranche dage ñu dem ci yeneen yi aujourd'hui je suis là sur Jakaarlo Pape est là bu ma demee Sen TV maa ngi toog gis-gis et cetera mm. mais combien d'autres jeunes peuvent parler yoo xam ne joxuñu leen opportunité bi mm. fi ñu war a waxee waxuñu fa et on a pris le relais sur les réseaux sociaux mu nekk bomb à retardement mm. boo xamante ni foofu ñun waxuma ne ñoo def suñu propre loi de parce que ñoo on respecte les institutions et les lois mais xam nañ doole bi mu am <coughs> doole bi mu am doon des jeunes en ont profité bi lii amee pendant que ñenn ñi lakk ba ñu taxaw di ko naqaru pour temps d'autres ont créé une cagnotte de 18 millions pour assister les morts. yeneen jeunes ñoo taxaw di xeex pour que justice soit faite. tonton Charles yaa ngi ko doon wax sànq pour les morts. et pour la démocratie de ce pays. parce que fa ñu war a waxee wax waxuñu fa on sait dañu dem rabattre ñun ñëpp ci réseau yi man mii j'ai une cagnotte pour les blessés deux ñi ngi en réanimation bal dafa romb ci bopp nit ñi et c'est toujours la jeunesse donc. même boo ne da nga yar nit sa doom danga koy yar sax ci kër jékki-jékki nga am fu mu xolam bi fees am fu mu toll mu jaxase kër gi yëpp te yaree woo ko noonu. dangay ànd ak pédagogie soo ko bëggee récupérer indiwaat ko ci sa bopp pédagogie boobu la ñuy ñaan bépp mag bu nekk ci réew mi. ak déglu bi. ak bàyyi xel bi parce que jeunesse bu consciente mi ngi fi bëgg na def dara li ma bëggoon rek mooy ngeen baal ñu àq ci wàllu li ñuy wax ay politique nous on ne fait pas de la politique mais dama gëm ne nit war nga koo nangul mu far APR hmm. far PASTEF animosité amul sens man j'ai un ami qui est de PASTEF te pourtant on a créé ensemble l'association il s'appelle Pape Gueye j'ai un autre ami on parlait on partait ensemble en mission aux Nations Unies il s'appelle Bassirou Nouhoum li la ne ab Bassirou du ma saaga Pape Gueye du ma saaga man damay toog neutre di wax lu ma neex ci situation pays bi y cette jeunesse bi nga xamante ni duñu ñu dóorante du ñu saagante mettez la lumière sur l'autre jeunesse di ngeen xam ne y a d'autres problèmes d'éducation et de formation yi ci ne te ngeen bàyyiwaat ñu xel bu baax a baax te yërëm ñu parce que ay mag bu ñu nekk ay xale dañ leen di yërëm bàyyi leen xel sans des jugements ngeen baal ñu àq bu baax a baax Bienvenue sur Salam Vision.